في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم alhamdulilahi rabbil aalamiin rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi wa ummatihi ajmaiin amma baadu fassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ci bis bu màgg bi di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu mbooleem jaamu giñ ko ciy defal ñoo ngi nuyu di ziyaara itam Seex Muhammadul Muntaqa di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu yokk aw fanam may ko wér yaram ba naalim am yépp mu yeggale ko ci tal ak kàttan dañu ànd ko moom mbokki jullit yi tey dañoo dellusiwaat ci nafaraat cëri doomu aadama yi nga xamante ni sunu borom tabaraka ak yonentam bi ak nit ñu baax ñépp waxtu wu nekk daleen koy sàmmloo te muy ay cër yu nekk ci yaramu doomu aadama tey jii nag biñ ci tànn mu ngi jëm ci làmmiñ ndax làmmiñ day cër bu doy waar boo xamante ni nim mën a indilee aw yiw boroomam noonu la mën a indilee itam safaan ba te ku wax wax teg ca noppi moo tax nag làmmiñ ni mu amee solo ba nga xamante ni mën na nit ki mën na cee defee jaamu yàlla gu mag ba sunu borom faye ko ci aljana noonee la ci mën a génne loo xam ne itam wala yaasu billaahi ëllëg sunu borom mën na ko caa faye sawara su ko jéggalu moo tax nag li mën a musle ci ayu làmmiñ weesu wut di noppi ci lépp loo xamante ni njariñ nekku ca wala njariñal àdduna newu ca wala njariñal àllaaxira moo tax sunu boroom ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàgga tagg noppi te mooy noppi ci lépp loo xamante ni amul njariñ yàgg nañ ca soññee itam ba tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne ku dëkke noppi ba doo wax lu amul njariñ mucc na man samata naja ku noppi ci lu amul njariñ te dëkke ko loola su ko bàyyiwut dana mucc moo tax nag abdullah ibnu sufyaan jële woon ci way juróom mu waxoon ne dama waxoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yonente bi dama bëgg nga wax ma ci lislaam mbir moo xamante ni duma du ma fi jógewaat ëllëg di ko laajewaat kenn ginnaaw bi ma la ko laajale laaje ba nga xamal ma ko loola nag yonente bi tënkal ko ci tënk bu gàtt te dana ko rek yow soo xasee gëm yàlla ba saxal ko ci sa xol nangu ko wax ko ci saw làmmiñ dara deseetu la xanaa nga jub kocc rek tege ci siraatal mustaqim loolu soo ko defee dana la doy ab dénkaane bu lay jariñ qul amantu billahi summa staqim mu mel na itam mu ne ko ginnaaw xam naa loolu dafa fas yéene koo jëfe ji loo may digal ma ma koy moytandiku yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di fob loxoom baaraam ba ne ko xanaa lii joxoñ làmmiñ wa qaala fa attaqi fa awma a bi yadihi ila kon ginnaaw bim ko dénkee mu gëm yàlla gëm ko ci xolom wax ko ci làmmiñam dénk ko itam mu sax ci njub tege ci siraatal mustaqim lam ko moytandikuloo mooy aw làmmiñam mooy mu cay moytandikoo def loo dul noona wala lu yàlla diglewul am keneen ku laaj laaj yonente bi alayhi salaatu ne ko yonente bi ana lan mooy may musal ëllëg te laaj boobu mu laaj nag ñépp ko war di laaj luy musal jaam bi ëllëg ci sawaas borom ba di ko tàbbal aljanna loolee nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko bokk na ca lay musal ëllëg mooy nga téye saw làmmiñ am sikk aleyka lisaanak téyel saw làmmiñ ba bañ caa wax loo xamante ni neexul borom bi tabaaraka wa taala loolu de soo ko defee bokk na ca la lay musal waaye mu toftalal ko ca ne itam na toog ci sa biir kër bu ko génn lu dul ne dangaa am aajo ju wala yitte ju far wal yasanka baytuka mu tekk ci itam ne ko itam say ñaawteef ak say sikk ak say ayib na la doy walis ngay topp ayib ak ñaawteef ak sikki moroom sa moroomi doomi aadama wa biki ala xatiati kon qultu ya rasul na man najaa qaal amsik alayka lisaanak wal yasanka baytuk wa biki ala xatiatik loole kon li tax ñuy indi xaddis boobu mooy lim jiital ne ko na téye saw làmmiñ naka noonu itam am yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na woon ku ma wattul li nekk ci diggante ñaari ngaamam wattul ma li nekk ci diggante ñaari tànkam danaa ko warlul aljanna te la nekk ci diggante ñaari ŋaamam mooy aw làmmiñam la nekk ci diggante ñaari tànkam mooy pëyam nee na ñaar yooyu ku ko wattul ba defoo ca lu naqari yàlla nee na yonent bi nee na maa la warlul aljanna man yatakaffalu lii bi ma bayna lixyayhi wa rijlayhi atakaffalu lahu bil janna moo tax sëriñ bi itam yàgg ñoo soññ ci ñuy wax lu baax yàgg ñoo moytandiku ko ñuy wax ci sunu làmmiñ lu bon walla ñu ci tudd awra wala sikki doomi aadama lisaanaka laa tadkur bihi awrata mriin fa indaka awratun wa linnaasi alsun yonent bi aleyhi salaatu wasalaam itam <clears throat> dañ koo laajoon ne ko aljanna ña fa lan moo ëpp ci sabab yi nga xam ne moo ca jaar ba jëf ko ci àdduna ba tax ñu tàbbi aljanna mooy su ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an akthari ma yudxilu nnaasa aljanna ya tàbbi aljanna ëllëg te yàlla nañ ci yàlla boole lan moo ëpp ci seen jëf wala jaamu yàlla yi ñu doon def ci àdduna ba sunu borom tàbbal leen aljanna yonente bi ne ko taqwallahi wa xusnul xuluq ragal yàlla ak rafetal say jikko yooyu la wax ne bokk na ci la tax la ëpp ca la tàbbal nit ñi aljanna ëllëg waaye ñu laaj ko safaan ba itam ña yàlla nattu bañ tàbbi sawar te yàlla nañ ci yàlla musal lu ëppoon ci seen jëf yañ doon jëf bañ nekkee àdduna ndax ñu man koo moytandiku mu ne al ajwafaani xanaa ñaari cër yu biire yi day moo leen ko yóbbee ñu ne ko ñaari cër yu biire yooyu mooy yan mu ne àll famu wal farju gémmiñ te bu waxee gémmiñ la nekk ci biir gémmiñ yi tax muy làmmiñ wal farju ak pëy kon bëgg naa xam ne foofu wala danañ ci dégg ne bu ne gémmiñ làmmiñ ak i sikkam moom la ca junjaale foofu ndax làmmiñ barab ba dëkkee mooy biir gémmiñ gémmiñ mën naa bañ am ay sikk waaye sikkam mooy làmmiñ wa ca wa ca nekk ca biir su dëkkee ay sikk di ko ca wax loola bokk na ca lay waral tàbbi sawara ëllëg yàlla nañ ci yàlla musal moo tax Maaz ibnu Jabal ne woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam anu aaxadu bi ma ndax yow yonente bi lii ñuy waxtaane rek di wax waxtu nekk ñuy wax ndax ëllëg bis penc sunu borom danañu ko jàppe yonente bi aleyhi salaatu wasalaam mel ne dafa waaru ci laaj boobu Muaaz ibn Jabal laaj mu mel ne lu lu mu waroon a xam la xam ne li ñuy wax ëllëg dis na ko dis nañu ko laaj def nañu ko jàppe itam bu jege ak bu jagut ne ko takkilat ka ummuk yàlla na nga tos ka rek mooy yaakaar na lii daal moom jëttoo na laaj ndax xanaa xamoo yow ma ans ne ëllëg ña tàbbi sawara yal nañ ci yàlla musal ña bi sawara ëllëg dara yóbbewu leen ko bañ fopp seen xar kanam ya ak seen bakkan ya dëpp ko ca sawara ak tàngoor wa dara yóbbewu leen ko lu dul ngóobiiti seeni làmmiñ mooy lañ daa wax ci àdduna te sàmmoontewuñ wuñ ca ak baax sàmmantewu ca cawoon ak la sariya daan dégli wa hal yakubbu nnaasa fi nnaari ala manaaxirihim illa xasaidu alsinatihim seen ngóobiiti làmmiñ ya lañ daan wax ci àdduna te baaxut moo leen tàbbi sa tàbbal sawara kon ñu dégg ci ne kon nit ki waxtu nekk rawatina jullit bi rawatina taalibe bi nay génne ci làmmiñam lu baax ndax bokk na ci li koy tàbbal aljana waaye su maytundikuwul làmbiñ nag ba dëkk ay sikk ak wax-wax ju ñaaw loola mën na koo tàbbal sa wara waliyaasu billah abdullah ibnu sufyaan at wax ne damaa waxoon yonente bi alei salaatu wasalaam ne ko damaa bëgg nga dénk ma dénk dénkaane boo xamante ni ci laay dama ciy jàpp fas yéene koo bañ a bàyyi bi ne ko qul rabbi allahu summa staqim na wax ne yàlla mooy sama borom moom laa gëm jàpp loolu ci sa xol wax ko ci saw làmmiñ jëf ko ci say cër su mustaqim topp na nga jub kocc ci siraatal mustaqim bañ a jëfee ay ay tere tey jëfe ndigal waxtu wu nekk nee na ma teg ca ne ko yow yonent bi lan nga gën a ragal ci mbir yi nga xamante ni danga ragal mu indil ma ay jafe-jafe ëllëg yowmal qiyaama ndax yowmal qiyaama ya fay tiitloo ak njàqare ya bare na waaye mu ne ko lan nga gën a ragal ci ne man mii mën na maa yóbbe ëllëg lu may tiital ëllëg nee na yonente bi jàpp ci aw làmmiñam ne ko xanaa lii qultu ya rasulallahi maa axwafu maa taxaafu alayya bi lisaanihi wa qaala kon loolu ku ko dégg xam ne lay yóbbe nit ñi njàqare ëllëg te yàlla nañ ci yàlla musal bokk na ca la ñuy wax ci seenu làmmiñ te bàyyiwuñ ko xel rawatina su nekkee wax ju bon Omar ibnu Xattaab itam radiyallahu anhu wax nañ ne mas naa romb Abu Bakrin Siddiq radiyallahu anhu fekk ko muy moom Abu Bakrin muy xëcc aw làmmiñam loola nag jaaxal ko lool ku toll ne Abu Bakrin di xëcc aw làmmiñam di ko ñoddi loola jaaxal Omar ibnu Xattaab mën naa jaaxal keneen tam waaye Omar daal ne Mm, taxawal ma laaj ko lii muy def lum ci jublu ne ko yow xalifab yonente bi yow Abu Bakrin lii ma la gis ngay def ngay xaj ci sa làmmiñ wi loo ci jublu Abu Bakrin Siddiq ne ko lu ma dal làmmiñ wii moo ko teg lu ma dal làmmiñ wii moo ko teg ak fam tolloon ci baax ak njub waaye ba tey mi ngi ragal ne làmmiñam dana ko yóbbee wax joo xamante nii dina ko indil ay jafe-jafe ëllëg qultu ya rasulallahi loolu la waxoon ne ruwiya anna umar ibn alxataab radiallahu anhu raba raa aba bakrin siddiq radiallahu anhu wa huwa yamuddu lisaanahu bi yadihi fa qaala lahu ma tasnau ya xalifata rasulillah qaal hada awradani almawaarida inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal laysa shay'un min aljasadi illa yasku ila llahi lisaana ala xiddatihi mu teg ca ne man abu bakrin kat déggoo naa yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ciree ngi nii bokk ci ciri doomi aadama yi boo xam ne mel na ne lakkal na lëjal na moroomi cëram yi ba bët bu set ñoom cër yépp dañuy ànd jublu ci borom bi naan ko naan ko di ko jàmbat cër boobee ñu ne ko cër boobee mooy ban mu ne mooy làmmiñ ngir tar gi làmmiñ tar nga xam ne mën na leen a yóbbee ëllëg ñoom cër yi ci des sax lu leen neexut moo tax ñoom ñépp ñu àndandoo di dëgmal ci borom bi di ko jàmbat làmmiñ kon yow borom làmmiñ war ngaa xam ne kat luy sonal sa cër yépp nag war nga koo wattandiku di ca wax lu baax te cay moytandikoo wax lu dul noonu abdullah nu mas'ud radiallahu anhuma itam wax ne ñu ne dañ ko romboon mu nekk ca kaw doju safaa ci waxtu aj wala waxtu umra waaye bokk na ca lañ déggoon mu koy wax nee na ma ngay waxantu ak mel na kuy wax aku làmmiñam naan ko yow làmmiñ tee nga wax aw yiw soo dëkkee wax aw yiw de danga am am koom-koom yow làmmiñ tee ngaa moytandiku wax ju ñaaw soo ko defee danga mucc bala ngay rëccu yaa lisaanu qul xayran taxnam waskut an sharrin taslam min qabli an tandam yow làmmiñ na ngay sax ci wax wax ju yiw soo ko defee da nga am am koom-koom na ngay moytandiku wax wax ju ñaaw soo ko defee danga mucc balaa rëccu yi ñëw bañ ko déggee muy wax loolu nag moom Abdullah ibn Mas'ud ña nekkoon ci wetam laaj ko ne ko lii ngay wax yow Abdallahi ndax yaa ko wax muy sawaxi bopp wala da ko wax dégg ci mag muy yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne leen ci yonente bi mag laa ko dégg muy yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax moom laa déggoon mu naan inna aksara xataaya bni aadama fi lisaanihi li ëpp ci ñaawtee fi doomu aadama ak i sikkam ak i bàkkaaram nee na ci làmmiñam moo ko ko yóbbee moo tax may wax sama làmmiñ woowu naan ko na ngay wax lu baax boo bëggee am koom-koom na ngay moytandiku lu bon boo bëggee mucc ci aw ay looloo tax ma koy wax abdullah ibnu omar itam radiallahu anhu waxoon na ne ba tey di wax ci làmmiñ ak nim doyawaar ak nim mën a àndi leen nit ki njariñ su xamee fa mu koy jëfandikoo ak ni mu ko mën loo xamante ni lu dul mu ne man kaffa lisaanahu satara awratahu wa man malaka ghadabahu waqaahu allahu adabahu wa man i'tadara ila allahi qabila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 وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

أكبر لا إله إلا الله kon ñoo ngi tolloon ci Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma mi waxoon ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na woon ku téye aw làmmiñam yàlla suturaal ay awraam yàlla suturaal ay ayibam ak sikkam mooy ku dëkke noppi léeg-léeg sax nga am sikk waaye sunu boroom man laa nëbbal sa sikk soosu suturaal sa awra mu ne itam koo xamante ni su meree mën a téye boppam ba du di wax lu naqari yàlla du ko jëf yàlla dana ko fegal mbugalam ëllëg mu ne ku jéggulu yàlla itam yàlla nangu sag jéggulu man kaffa lisaanahu satara llahu awratahu wa man malaka ghadabahu waqaahu llahu adaabahu wa man i'tadara ila llahi qabila llahu udrahu kon foofu itam ñu delsi ci rek ci li ñu waxoon ci làmmiñ ni mu waar ndax loo xam ne boo ko téyee boo ko téyee bàyyi ca xel sunu borom sunu borom suturaal say awra lu mat a bàyyi xel la abu hurayra itam wax ne yonente bi aleyhi salaatu wasalaam nee na woon ku gëm yàlla gëm ne bis penc dana ñëw na ngay faral di wax aw yiw walla nga noppi ñaari yëf la daf laa digal ngay wax aw yiw soo munta wax aw yiw na saxoo di noppi aw yiw nag mooy loo xamante ni njariñal àdduna nga ca walla njariñal àllaaxira fal yaqul xayran aw mu amoon benn arab bu ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yow yonent bi dama bëgg nga tegtal ma jëf joo xamante ni su ma ko jëfee mu man maa tàbbil tàbbiloo aljanna yonent bi alayhi salaatu wasalaam tuddal ko ñeenti mbir ba juróomi mbir ba ca njëkk dane ko soo amee aw ñam wu la lew na nga koy nangoo joxe ngir jëm yàlla jox ko ko ko aajowoo ngir jëm yàlla kon ñu dégg ci ne benn ngi noonu ci yoon yi mën a tàbbal nit aljanna am ñam wu la lew nangu ko jox ko ko yittewoo te nangu koo def ngir jëm yàlla muy benn bu ñaareel ba mu ne ko soo amee ndox mu la lew moo moom na nga cay màndal di ca wëgg ku mar te def ko ngir jëm yàlla gas ab teen ngir nit ñi di ci naan ci sa xaalisu bopp te def ko ngir jëm yàlla itam ci yoon yi mën a tàbbal nit aljana la bokk mu teg ca ne ko nangay digle lu baax tey tere lu bon at'imil jaa'i'a wasqi dam'aana wa bil maaruufi wanha anil munkar deel joxe aw ñam wula lew te joxe ko ngir jëm yàlla deel maye ndox mu la lew te maye ko ngir jëm yàlla deel digle lu baax ngir jëm yàlla deel tere lu bon ngir jëm yàlla mu ne ko nag fa in lam tutiq looloo tax ñuy wax andi xaddis bi fii fa in teq tutiq su fekkee mënoo benn ci yooyu amoo aw ñam woo mën a joxe amoo ndox moo mën a joxe ngir jëm yàlla amoo xam-xam boo mëne di xàmmee sax lu baax ak lu bon bay mën a digle lu baax di tere lu bon nee na soo ci mënul lenn ci yooyu nag fa kuffa lisaanaka illa min xayrin na nga saw làmmiñ bu ca wax lu dul aw yiw mbokk yi kon ñu déggee foofu ne bi mu tuddee ñeenti mbir dane su fekkee mënoo ci benn yemal ci benn bii te mooy ngay téye saw làmmiñ doo ca wax lu dul aw yiw loolu nag aw yiw lañ fa ubbil ab jullit ndax xanaa ceel leeral moom ci loo xamut ak wax ju ñaaw ñi ko tele wër te bari te nee na su fekkee mënoo benn ci yi na nga téye saw làmmiñ fa yéene caa bañ a wax lu dul aw yiw moo tax nag ña xamoon loolu te yeggoon ca daraja yu kawe ya ku mel na ne sayidna abubakar siddiq bañ a wax rek daana ko jaral mu fab aw xeer lok ko lok ko ci biir gémmiñam ngir bëgg a mën a téye boppam ba du wax ña ko nan gis muy sax xeer woowu moom sayidina abubakarin daanañ ko laaj lu waral ngay sex xeer bi mu ne xanaa téye samaw làmmiñ bëgg koo gàllankoor ba duma ci wax lu neexut yàlla daana aw allazi awradani l mawaarida ji njëkkoon wax lu ma dal làmmiñ wee ma ko teg ak fam yeggoon abdullah ibnu mas'ud radiallahu yi tam wax ne maa ngi giñ ci yàlla mi nga xamante ni amul benn buur bu ñuy jaamu tam yeyoo jaamu ga ku dul moom maa ngi giñ ne ñu ne ko looy giñ mu ne gisuma ci àdduna lu jar ñu tëj ko tëj bu yàgg lool lu dul aw làmmiñ gisuma ci àdduna lu jara tëj tëj bu yàgg ci kaso lu dul aw làmmiñ fan la koy tëj kon moom tëj ko ci biir gémmiñam ba du ca wax lu naqari yàlla wallahi alladi laa illa hu maa shay'un ahwaju ila tuuli sijnin min lisaanin kon suñ waxee lii mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nga xam ne mel na ne wax nañ ne dafa mel ne ca leeral moo gën a ëpp solo ana lu ko jox nga ngëneel loolu moom noppi mooy ay yib ak gàkk-gàkk yi làmmiñ ak wax mën a andi ndax bokk na ca la wax mën a andi mooy njuumte kon boo bëggee mucc ci njuumte mën ngaa ne noppi la wax mën a andi itam wax lu dul noonu bokk na ca ak jëw ak rambaaj ak ngistal ak naafiq ak wax ju ñaaw ak werante tagg sa bopp ak naw sa jëf ak xuus ci neen ak xuloo ak i caaxaan ak jengal dëgg naka noonu yokki waxi nit te bëggutoon nga yokk ko wala wàññi waxi nit te bëggutoon nga wàññi ko ak lor mbindeef yi ak xotti seeni awra yii yépp mën naa juddoo ci kuy wax te say wax sàmmoonte woo caag la borom bi bëgg soo noppee nag mën caa mujj te yii ngi ñu la limal nag day ay gàkk-gàkk ak ayib yoo xamante ni ci làmmiñ lañ koy séentoo te diisut ci moom diisut ci moom te dafa neex ci xol itam naka noonu itam jikkoy doomu aadama ju baaxut ji itam day woo doomu aadama yi di ko ci jëmale saytaane itam di ko ci jàppale moo tax nag nga ne li noppi am rëy lool ndaxte dana tax nga mën a concentré wu yem ci sa yitte yi la amal solo dana joxe nit ki ak wegu dana tax itam nga mën a am féex ngir xalaat ci loolu amal njëriñ dana tax nga mën a am féex pour zikr tudd yàlla ak jaamu yàlla ak moj mëcc ci li wax di indil ci ay musiba ci àdduna ak alaxira moo tax sëriñ bi waxoon ne awwid lisaanaka qawlal xayri toxda bihi inna lisaana lima awwatta yactaadu fi kulli sayin taata ma sananta lahu fi sar wal xayri fanzur kayfa tasdaadu saw làmmiñ na nga koy tàmmal wax ju baax ndax la nga ko tàmmal rek moom lay tàmm bu dee lu baax lu baax lay tàmm bu dee lu bon tam lu bon lay tàmm kon buñ la waxee ne waxal lu baax na nga jiital ci la ngay wax jàng alquran ndax moom la sëriñ bu mag bi mas di njëkk di santaane kullu muridin bi yeloosu fal yu dim tilaawatan di xayri dikrin sim képp koo xam ne aju na ci moom nee na mi ngi lay diggal ngay saxal di jàng alquran ak lan ginnaaw boo jàng alquran boole ci xasida yi nit ñu baax ñi ak dikru di tudd yàlla di julli yonent ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di saxalloo looy jégglu yàlla di defar diggante nit ñi di déglu lu baax di teralu bon kon ñoo ngi ñaan yàlla mu wattul ñu suñuy làmmiñ te tàmmuloo ñu wax lu baax ñoo ngi ñaan yàlla mu yàggal fi sëriñ bi wéral ko ba mottali mbooleem naalam yi tañ ànd koog moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. borom Tuubaa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 واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام هلا الفلاح هيا هلا الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا شريك له ولا ملك ربنا سيدنا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 إن العاقل من اشتغل بمراد الله عن مراده وعكف دائما على طاعة مولاه وألزم الوصية التي وصى بها جميع عباده فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتخذوا التقوى مسلكا ومتجرا وعملا ليوم تجد فيه كل نفس ما عملت من خير مهضرا فتقوى الله متجر الفائزين وغايتهم المقربين ولقد خاب من شغلته عن ذلك دنياه وآثر على طاعة ربه طاعة نفسه وهواه فعلينا أن نكف نفوسنا التي بأيدي الشيطان والهوى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 الحمد لله الذي أوضح معالم الدين ومنح هداية أصفيائه المتقين وأشرق في قلوب من شاء من عباده أنوار اليقين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نجد بركتها يوم يجمع الأولين والآخرين أما بعد فيا عباد الله شمروا وفقكم الله لآجلة لا بد من عمارتها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 وراقب الرقيب على من أطاع من عباده وحصى ولازموا التقوى كما أمر الله به عباده وأوصى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم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 ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 الله asalaamaaleykum.